ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey doore kook Balla Gaye 2 ma ne daj ci xët wu njëkk sunu lamb moom la lion de Guédiawaye moo nekk ci xelu mbër yi nekk ci xelu amateur yi nekk ci xelu chroniqueur yi la sunu lamb xamle mooy Boy Niang 2 Gris Bordeaux B52 ak Tapha kan moo ciy jàkkaarloog Balla Gaye 2 kii pour défier Balla Gaye 2 càppaacoleeg troisième tigre de Fass ak borom mbuur ak borom taq ci ripp moo ci fas yéene tas ak Balla Gaye 2 journal ba xamle ne ñetti revanche la combat jee revanche ba noppi may sans booy ñaa de waa axlu lamb daal di xëy fësal kan ak kan la Balla Gaye 2 fas yéene jàkkaar lool bu dee ñoxo baay moom Balla Gaye 2 ak booy ñaa de mooy combat bi nga xam ne moom la ñëpp soxla l'arène veut Balla Gaye 2 booy ñaa de arène bi bëggul beneen combat bu dul diggante Balla Gaye ak booy ñaa de bu dee Kati Diop Balla Diouf ak Doudou Diagne jekko ñoom ñëpp bokk la ñu wax Kati luy sa xalaat mu ne Balla Gaye Bombardier loolu mooy revanche bu neex bi Balla Diouf ne ko waawow Balla Gaye 2 ak Bombardier loolu mooy combat bu logique bi Doudou Diagne jekko ne ca tonn ne leen Balla Gaye 2 ak Bombardier daal revanche bu explosif lay doon kuy wër combat bu neex ba egsi ci revanche Balla Gaye 2 Bombardier da ngay waaf toog bii combat mooy combat bi neex combat bi logique combat bi ñëpp di xaar Bombardier borom mbuur ku koy xaar ci combat guddi yi mbaa doo xaddi moom B52 démb la doon saraxal magam Pape ja ca mbuur mbooleem kuy yëngu ci làmb démb yaa nga woon ca mbuur ngay communicateur traditionnel wala ngay reporter mbër manager ba ci promoteur supporter amateur ba ci autorité ñëpp nga woon démb ca kër Bombardier i manager njiital Pa waa sport beeg ministre Matar Ba ñu nga fa woon teew ñi jiite lamb di waa CNG ci njiital Alioune Sarr ñu nga fa woon buñ demee ca mbëre Mike Tyson a nga fa woon Tapha a nga fa woon Modou nga fa woon Baboy a nga fa woon rëg-rëg mi doon laaj Bombardier bu yàggul sax ñëw na fa jaale si magam journal ba xam le li ni mel daal mooy wane ne jàmm rekk fi nekk sport dafa war boole waaye war taxaajale démb waa axlu lamb ca mbuur

combat la war doon maa ko gañe maama ne ko man mii waruma perte combat bi Fallou Ndiaye may promoteur ba ne man lenn rek laa ci bëgg lamb ju jaar yoon neex maama mi ambianceur bu mag la Jokal moom ambassadeur u séeréer la fu mu dem culture séeréer lay représenté bile combat daal li ma ciy séentu mooy mu neex saf sàpp bu ñu jàllee ca roi des arènes Modou fansam ya mer ba futt la def leleen merloo mooy caravane ba Modou saafuwanteeg moom ñàkk li ni mel nag moo tax ñenn ñaa ngay gedd di rocceeku ndax la journal ba fësal mooy saison bi passé diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 ak diggante Modou Lo Eumeu ñaari combat yépp la Modou Lo mobilisé daana mobilisé lu ko ëpp boo mësaana tudd Modou balaa nga àgg ca loo ba stade bi fes dell waaye léegi mbooloo maa ngay wàññeeku ndax mer ba fut fa ñuy jeexale mooy ca champion dóor dóoraat ba nekkoon ca États-Unis laaxatu a xam état de forme bi mu woon ca a làqatu